docteur Malick Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi yow yaa yore kàddu AFP euh, nekk itam directeur général bu ASEPEX alors ñu tudd la ci mbirum suuf fële ca Wakam wax ni euh, nguur gi daf la jox euh, suuf yoo xam ne service public yi ñoo ko moom lan moo xew dëgg-dëgg ci mbir moomu. waaw loolu moom ñàkk xam rek ñoom ñu wax ñàkk xam ni mu waral bëri waaye ku xam-xam ne ci mbirum. Euh, yoon lay dox ci laa mën a doxee benn ñaareel bi bi euh, ma nekkee ci liggéey ci mbirum euh, entrepreneuriat bâtiment loolu boobu waxuma sax maa ngi politique xalaatuma sax nekk ci ay état ak yooyu donc déjà li ñuy wax noonu privé la mooy benn benn titre privé boo xam ne man naa ko jënd ci koo xam ne tamit moom tamit privé la nga jënd ko ñu euh, signé bi ñuy signé ci kanamu notaire yóbbu ko conservation foncière donc. bi nga ko jëndee yàgg na yàgg na ëpp na fukki at loolu kay ëpp na fukki at. Hmm. donc du loo xam ne euh, tey jii nii euh, man comme j'ai dit man soxlawuma lenn loo xam ne état da koy attribué parce que awma ci soxla mosuma ci am soxla. mosuma ko laajte dafay loo xam ne man euh, dafa dul dafa dul si samay euh, koo xam ne balaa muy am fanweeri at mu ngi ci loolu di ci liggéey ba xam ne euh, bi ñu balaa muy dugg ci politique tamit ñu ngi ci liggéey loolu moom c'est pas parce que ñu ngi politique ñu lay soxla lenn lenn lenn loo xam ne tey jii ni ñu ngi jógee ci état donc soxlawuma terrain bu ñu jógee ci état te tamit duma ko laajte te du ma ko mos soxla incha allah. Mhm. donc loolu lu leer la lu leer naa ñi la maintenant nag nit ñi moom xam nga li xamul rek la ñuy wax. Mhm. donc euh, wakaam moom dafay foo xam ne euh, su ma fa nekkee dam fay def li mu fay def moom euh, wakaam mois yi xam nañ ko lépp lu jaar yoon rek lañ fay def <laughs> ma ma fa daan liggéey ci mbirum faj mbirum officine pharmacie indi fa ay innovation surtout donc. loolu kese la. d'accord mais yéenekaay bi wax na ni euh, askan wa ci boppam rafetlu wu ñu tabax baag na mu demee ak suuf sa sax na nga ko jotee est-ce que mës nga jàppante ak askan wakaam wala ñu mus a wax euh, loo dégg jëm ci suuf soosu. non askan wakaam mosuma mosuma am problème ak ñaar fukki at. yaa ngi nekk ci faj ci ab ab uh, ab dëkk da ngay uh, am lu lu cest relation yu baax ngay am ak ñoom te muy yi dignitaire wakaam yëpp uh, te également population wakaam hmm. donc maintenant chacun est libre toog wax loo xam ne xamu ko loolu ñun loolu duñu ñu tax ci te koo xam ne tamit dafay xeex lu yàgg man depuis ma nekkee maa ngi xeex dégg ngeen temps yi ñuy wax affaire littoral bi euh, dama bokk man ci ñuy xeex lu bari pour que littoral bi muy doo xam ne dañ koy delloo doomu Sénégal te muy euh, littoral bi nekk euh, côté Fann Point Amitié man bi mu fa nekkee maire man yëpp moo nekkoon pour que littoral bi ñu mën ko delloo waa waa waa Sénégal. waaw yéenekaay bi aussi wax na ne tabax boobu nga nekk di def ak benn promoteur dafa fatt sax yoon wa far amatuñu fu ñu jaar. waaw loolu moom ay waxu ça n'a absolument rien à voir loolu loolu loolu moom du du dëgg euh, d' abord et yoon nga xam ne ñoo nekk wakaam xam nañ ko amul benn yoon boo xam ne tey jii nit xalaat na sax ñetti xel euh, xalaat nga nekk naan yaa ngi tabax ci foo xam ne a fa nekk ak mais xam nga rek nit ñi moom xëy na politique moo leen tax a jóg loolu man du ci perte temps. Mhm. alors euh, li yéenekaay bi wax euh, te nga weddi ko bu fekkente ni kon du dëgg ni nga ko waxee ndax euh, da nga nar yóbbu mbir mi ci yoon ngir seetal sa der. ah bon ça dépendra rek ça dépendra loolu moom xam nga loolu man man ay équipe laa yore donc loolu yoo xam ne la man en général man du ma koy sax topp nit ñi ñooy sama équipe yi ñooy xool naka la ñuy toppee lii wala naka lañ koy toppee. Mhm. ñu waree dem ci yoon dem ci yoon bu ñu warul dem ci yoon tamit ñu xool nuñ koy doxee daal. Hmm, d'accord alors ñu ñëw ci. mais loolu du ma loo temps daal. alors ñëw ci léegi euh, plan bi nga xam ne président wax na àllarba bi ñu génn nañu ko jéem a doxal. plan d'aménagement euh, boobu lan la mun a indi comme saafara justement ci jafe-jafe tey bi. waa d'abord président suñu comme président xool na moom dafay déglu population donc ci déglu population boobu la toog gis ne ah, am na situation boo xam ne euh, nit ñi war nañ mën a. tamit bénéficier de aménagement aménagement boobu parce que bu ñu jëmee ci yenn réew yi man je me rappelle bi ma nekkee li ma doon wax nit ñi ma ne moo ne leen ah ce serait bien que ñu am aménagement bu mel ni bu nekk Maroc wala bu nekk Turquie wala bu nekk euh, yenn zone yoo xam ne Amérique lañ ko gis wala France et cetera donc euh, loolu yëpp ñun am nañ chance tey bi ñu am bras de mer boobu président de la République dañu ñoom jël c'est décision salutaire mais comme j'ai dit également ministère de gis naa que ne ñu ngi préparer aussi euh, benn aménagement au niveau de la corniche parce aménagement amee rek xale yi mag ñi yow yëpp ñoo fay dem di fa euh, di fa dox di bénéficier wu di ci géej gi mm. euh, pas que benn nit rek moom moom ci boppam ñëw di ci bénéficier wu par rapport à d'autres. bradage littoral bi ni ñu koy waxee nag lu am la bët itam tegu na ci. yow noo jàngatee caxat caxat googu ak lan nga ci gis comme saafara. waaw pour man loolu déjà du yoon du yoon. Euh, bradage littoral bi yoon parce que man euh, je me rappelle bi ma nekkee maire dama gis que ne euh, à partir de deux mille ba parce que ñun ñu ngi ñëw ñëwoon mairie deux mille neuf à de deux mille daal amoon nañu bari ñoo xam ne tey jii nii dañ leen joxoon ay attribution zone yoo xam ne zone kii la woon zone zone domaine public maritime la woon te ñun dañuy jàppoon ne domaine public maritime affaire jaar ci gouverneur bu jaaree ci gouverneur jaar conseil régional Euh, su jaaree conseil régional nag ñu xool su fekkee ne d'utilité publique la ñu def attribution bi mais dañ gisoon ne dafa amoon ay attribution mais d'utilité privée donc loolu dafay loo xam ne euh, tey moom moo euh, lu ci bëri li nit ñi di wax attribution période yooyu la woon hmm. loolu tamit dafa c'est normal que ñu leeral ko période yooyu noonu entre deux mille ak deux mille douze attribution majeure partie foofu la daan foofu la daan ñëwee ñaareel bi tamit Euh, mu am acte trois de la décentralisation moi je me rappelle ñun bi ñu nekkee maire commune d'arrondissement ñun mënuñu woon signer autorisation moo tax man nekk naa maire ba génn ci ñëwma kenn autorisation ci domaine public maritime donc autorisation ñu ngi doon génnee ci commune de plein exercice ville de Dakar à partir de 2014 commune bu nekk moom moo am latitude signer autorisation bu ngeen gisee euh, bras de fer bi am entre maire Mermoz ak maire Fann Point Amitié muy Barthélémy Dias ak Pala Samb bras fer boobu ngeen gis parce que léegi ñun ñoo am prérogative bu signer autorisation ku ci nekk mu ngi naan sama zone la euh, donc euh, parce que léegi commune d'arrondissement commune de euh, des des communes ñoo koy signer approuvé par les sous-préfets sous-préfet moo naan ah arrêté bi damay def arrêté d' approbation accord naa que ne ci li mu signé jaar na yoon wala mu bañ a def arrêté mooy li mu signé donc loolu yëpp dafay loo xam ne dafa changé tey hmm. euh, ci euh, système bi nga xam ne moom moo indi acte trois de la décentralisation di ñaax rek nit ñi ñu xoolaat bu baax bala ñuy def ay signature ay euh, arrêté yooyu parce que c'est important de faire un bon suivi Euh, mais président de la république li mu wax rek moom déjà euh, dina leeral lu bëri li nga xam ne loolu la nit ñi daan def. ñu ñëw ci euh, mbas mi di euh, Covid 19 euh, dafa mel ni chloroquine fi mu ne xeex bi ak ñi ko doon ŋàññ jël na raw gàddu gi ndax Sénégal mi ngi ci sax ginnaaw bi OMS waxee ni nañu ko dakkal OMS mujj delluwaat ginnaaw ca la mu waxoon ci noonu yow ban jàngat nga def ci paj mi ñeel ñi feebar fii ci Sénégal te ñu teg ko ci chloroquine boobu. waaw ñun Sénégal comme ni wax ñun musuñ Euh, xalaat nekk sur le plan médical dañuy naan dañuy euh, euh, topp kii wala topp kee sur le plan médical ñun on a une souveraineté cest dire ñun ni ñuy xalaat la ñuy def cest dire ni ñu ko xalaatee lañ koy defee bi ñuy toogee ba mbas mi ñëw ñu saytu xool kàngam yépp toog wax dirigé par le professeur Seydi ñu ne hydroxychloroquine la ñu utiliser en monothérapie 600 milligrammes par jour ñu utiliser ko mu dox gisuñ presque effet secondaire ñu yokk ci benn macrolide benn genre antibiotique la boo xam ne dañ koy ooyee macrolide ñu euh, euh, ñu ñu ne tey euh, dañ koy boole ak hydroxychloroquine mu gën a dox encore léegi taux yi li ngeen gisee taux de guérison dépassé nañ 60 pour cent de taux de guérison loolu lu baax la par rapport ak au niveau mondial li ñu gis ci taux de guérison bi nga xam ne mutul mutul 30 pour cent. donc mhm. ci loolu la ñuy continuer liggéey waaye tamit doyul parce que euh, am na mbas mi ñu ngi continuer law te bu ñu xalaat ne jeex na bu ñu toog rek ne taux de guérison bi baax na mbir mi jeex na déedéet mbir mi dafay pour mu jeex tàkk il faut que guérison yi yokku il faut que également cas yi chaque jour bu ñu ñëwee ñu ne tey cas amatul bu ñu ne tey cas amatul et cetera donc ñu xam ne tey jii nii presque euh, mbas mi dem donc loolu la ñuy euh, bi nga xam ni euh, état bi euh, def na ko muy woyofal ci wàllu dem geeg dikk gi ak yeneen yu ci aju dafa mel ni indi na bàyyeeku ci askan wi lii bu wéyee ak ñu dolli ci transport aérien bi ñuy waaj ubbi ndax yaakaaroo ñu yegg ci beneen pic bu fekkente ni sax jotoon nañoo xam pic ni ko ministre de la santé waxee. non man man man d'accord naa ne tey jii bu ñu bu ñu bu ñu bu population yi woyofalee rek mbir mi néewal ko rek duñ ci génn pour ñu génn ci il faut que population yi fag fag fagu bu baax a baax a baax a baax tey la affaire bi gën a euh, gën a mën a transmettre tey la affaire bi gën a mën a rey bu njëkk zéro décès lañ doon am léegi après ñuy am chaque jour benn léegi chaque jour ñaar et cetera donc tey mbas mi mi ngi fii te mi ngi reyee te pour que ñu génn ci rek dañuy respecter distance sociale yi di sol ay masque di raxas suñu loxo Euh, yooyu yëpp ñu ci def attention bañu bañu regroupement yi loolu yëpp bu ko defee rek ak euh, li nga xam ne corps médical tey ñu ngi koy def nañ ci génn. regroupement yu amul benn njëriñ ay grand place ay dem ci ay bo dajaloo ci ay ay ay ay ay ay plage nekk en en même temps ñu bëri ñu nekk ci benn ay enceinte fermée yooyu yëpp dafay doo xam ne dafay yokk. masque bi masque yi su pourquoi ñuy insister sur le masque c'est masque barrière la moom mooy bloquer virus bi euh, gis nañ ne tey jii nit ñi lu leen neex lañu solee masque da ngay sol sa masque teg ko sa sikkim comme ne loolu dina la protéger alors que masque da nga war a teg te masque bi boo ko tegee taxul nga dindi distance boobu physique bi ñuy wax noonu le fait ñu naan toog leen un mètre nañ continuer toog un mètre malgré le fait que ñu sol masque parce que gis naa ñoo xam ne pour ñoom bu dañ naan distance physique d'abord na bokk ci masque donc loolu yëpp dafay loo xam ne bu ñu ko defee rek dinañ ci génn incha allah. jërëjëf docteur Malick Diop amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay porte parole AFP directeur général bu ASEPEX itam jërëjëf.